question bo xamné euh dafa soxol euh, li nga xamné modi état bu Sénégal suivement ya ngi suivre actualité bi nga xamné mo am ca ca ca Niger euh, ñu gis également ki nga xamné modi euh, ministre min ñu walum affaires étrangères no jangaté cadre yi mu wax ni Sénégal noppi na ngir def ben intervention militaire fi nga xamné modi Niger ngi rek daal di indiwaat li nga xamné modi ordre constitutionnel bi. mané lañuy dugg lu suñu yoon nek lañuy ñuy wax si suñu yoon nek réew mi réew jàmm le tey jii boo Afrique de l'Ouest muy Mali muy yenen réew yi ñu bëri ñu ngi def ay coup d'état et que ces coup d'état ne signifie rien ne définit rien à part ben mbir moy sama wax bi na dina diis troisième guerre mondiale dafa melni lañuy déclarer man lool la gën a gis parce que armée bi ni ñuy jëlee pouvoir bi ba pare di insister sur un programme pour nous dëppmal ko ko par force par obligation parce que le Niger même le euh, bah, comment dire euh, comment dire le gars j'oublie le nom tay wa Mali dem nañ pour soutenir ko hein tay wa Guinée aussi na ya le ministre de l'intérieur il a parlé vous tamit wax na nga ñëwaat Guinée Bissau aussi dem nañ soutenir ko légui confrontation bobu entre africains nous war les états unis d'Afrique les Khalifa Sall di un continent uni on s'affronte entre nous jàngat Bobo, a bokk ci dara lu ñu les armes ci souffrent. Nous na Afrique nous sommes unis Afrique ben la Serigne Touba dem na Guinée Bissau jaar na Guinée Conakry wacc na Bamako kenen ak kenen ñoom seen marabu yu mag jaar nañu ci réew

dans la transparence, que l'Afrique soit unie. On n'a pas besoin de s'affronter entre nous, ma soeur. Tu de lancer le message. Nous nous unir nos forces, nous les Africains. En Europe, nous sommes ben. les États-Unis d'Amérique nous ngi Miami New York yaa ngi dégg euh, ak États-Unis te avons ils ont uni leurs états France nous avons le Monaco yaa ngi Paris nous avons ils ont uni leurs états kon Afrique ni ñu jëm a unir force xool nu ñuy débloquer noonu parce que nag lu tax tubaab yi bëgg suñu combat tey booy wut uranium li mu am ci Afrique amul fenn bauxite bauxite bi ngay dégg boo demee Guinée Conakry da ngay yéemu ci yàlla j'étais là-bas en Guinée bauxite monde entier bi bu mu daj Guinée moom moo leen di distribuer bauxite est-ce que amee dégg tey boo ñëwee ci pétrole boo ñëwee Nigéria bàyyi mooy deuxième pays exportateur du pétrole dans ce monde Les Union européens eux les américains eux les hollandais les portugais ils ont un seul objectif De nous la colonisation jusqu'à présent et on est dans la mondialisation on doit être libre maintenant de gérer notre Afrique à notre façon, à notre manière, parce qu'on est des révolutionnaires et on est des républicains africains. le amoon naa mbégte dalal sur le plateau monsieur Lamine Jack Gay. alors moo bokk nag ci au Sénégal 2024 pour Khalifa Sall alors je suis la ñu amoon dalal ko plateau euh, fii ci seen média seen émission challenge politique comme nous ñu koy defee ay bés bu ne daal di fi te daal di fi dalal koo faire ne xam-xamam dafa màcc jëmale euh, mbaa ñu faree ci ay politique donc nous ngi koy